quatre deux mille soixante xam naa ne bala maa bind di ko jàng moom man sama bopp bi baaxul man analphabète la jànguma dara waaye nag attention anglais moom njëkk naa ko ak kii ak yow non eh anglais fortaal yii rek yii rek xam nga waa ji waa ji daa nekk ci biir classe bi prof bi daal di woote laaj daan ne maanaam un fourneau lay wax wala une fourneau

ñu lay jaajëfal bu bu maanaam bu ko defaree woon nii rek lépp neex kon kenn du làkkaloon la juum nga war a def nga nangam ndax da rafetal rek bu dee jigéen ñi bu may woon ndeysaan mbuur laa taale sama woto 15 heures barke yonent bi départ fii laa agsi directement te bu ma paree ni sama nga nee gaare mbuur laay delluwaat directement xam de dama fa nekk tournage nga damaa bàyyi sax gars yi ñuy àggale man leen yëg comme am nañu yëg-yëg ci man lu nu xewle ne kooku dara newul waaye man leen danaa àggale te lu ma mën it danaa ko def ba ne leen suñu borom defal jàmm ndax nag xaalis bi ngeen yor man leen neexoon te déedéet du ko jox benn li fi ne ci artiste bari noonu li fi ne ci artiste ci réew mi bari na waaye lu ngeen xam ne leen wootee ko xam kon day jaar ni delloo njukkal ci yéen di leen sarkat te dina ko gën a yaatal nag man bëgg naa léeg-léeg bu ngeen amee lu bees ngeen envoyé ma ko sama téléphone ma def ci vidéo def ci ba mu rafet sànni leen ngeen dugal ci lu euh, euh, mu euh, ci net bi ñu xam ne perkat mi ngi ci lonage nii di leen taxaw ni ngeen may taxaw dañ leen koy taxaw réew mi ñëpp doon jàppalante léegi réew mi avancé na seen borom yàlla na liggéey bi gën a jëm kanam yàlla salaire yokku salaire yàlla yokku dégguma de salaire yi yàlla na yokku ah salaire yi yàlla na yokku sa waay bi ngi naan nag boo demee amit bay jooy moom daal ndax daal kontaan na lu yàlla suñu borom dolli jàmm cinq quatre-vingt-dix mi nag am naa yéen am lu ma ci def bu moo ko defaree rek danaa leen loolu sama yëfi bopp ndax damaa bëgg dem Qatar nde yiinoɗa ɓurgueɗi yokkuma amiyima je vais aller à qatar supporter là-bas les lions je veux être par exemple qui nu nuy waxee kii l'ONAS hein? hein? je veux être le mascotte de l'ONAS pour aller à qatar être en premier ma o dem chaque jour restauration cent mille man de dama jàppal mooy mënul ñàkk tubaab waaye soxna moom wax na ko ci tubaab daal. li balik. Jam tubaab balik? ñoom Wah, bali. du ñooy bali. ka balik. waaw. est-ce que waa Dakar ñooy bali DG SG coordonnateur. DG SG coordonnateur ñooy validé. DG. DG voilà. SG. yéen coordonnateur. yéen validé pour ma dem pour Pemba xar dem Qatar. ànd ak ordonnance. ànd ak ordonnance yéen da ngeen validé ngeen kii validé. DG validé na DG validé na. Qatar ordonnance. puede a de. <laughs>